salaamaaleykum gars yi naa leen daleen ak jàmm ci Sen Sport dañu wax ci Sofiane Diop kayiti xibaar yi dañoo biral tey ne mu ngi ci waxtaan digënté mak ñi nga xamanteni ñoo de fédération dégg nga de football voilà gannaaw bo xamanteni ki di aline Cissé ay fan ci ginnaaw mu ngi doon leeral ci né euh, dégg nga moom contacté won na ki nga xamanteni moy Sofiane Diop ak i parents am ngir dégg nga maam wan leen li nga xamanteni moy bëgg-bëggam présenter leen li nga xamanteni moy projet voilà ngir ki di Sofiane Diop wara mëna ñëw jouer ak équipe nationale bu Sénégal té waxon na né lool dégg nga ba ma ko defee yàgg na ndax kat waxon nako ci bénn conférence de presse xëy na da ko doon léralat ay fan ci ginnaaw rek voilà té mu ngi tok di déglu ki nga xamanteni moy Sofiane Diop tay biir kayit yi xibaar ñëwaat ci ne officiellement kii di Sofiane Diop ak ñi di fédération marocaine de football ñu ngi ci li nga xamante ne mooy dégg nga discussion voilà loolu nag li muy leeral rek mooy kii di Sofiane Diop na dafagul suwaawam wala boog xëy na dafa bëgg représenté ñi di waa Maroc en tout cas wax voilà mu a wax rek mooy lañ ca waxoon bu njëkk Sofiane Diop nañu ko bàyyi ak kii li nga xamante ne mooy xelam comme Aliou Cissé def na li ko waroon digganteem ak joueur bi voilà kon ñu seetaan ko rek bu fekkente ne xëy na pare na ngir représenté Sénégal dina contacté ki nga xamante ne mooy Aliou Cissé liñ ciy waxaat rek mooy Aliou def noonu mu defoon ak Sofiane Diop ak ñeneen ñi mu ko defal ñi mu ko war a defal voilà mooy ku mel ni Boubacar Camara Iliman Ndiaye ak ñoom Malang Sarr ak ya ca aju. voilà waaye kii di Sofiane Diop moom li nga xamante ne moo ci waroon Aliou Cissé def na ko waxoon nañu ko dañu koy waxaat rek tey ji nag li ñu biral mooy Maroc ñoo ci nekk jamono bile voilà ñu seetaan ba xam fan la wanante di mu ki gëtam. ki nga xamante ne moom joueur Nigéria la te nekk fële ci Espagne ñu koy wax Kelechi Nwakali moom nag mu ngi doon footballé ci club bi nga xamante mooy Huesca Huesca jamono di nekk foofu nga xamante ne mooy ca La Liga tout muy li nga division bu Espagne moom kayiti xibaar dañoo bëri kenn moom dañoo daal di dakkal li nga xamante ne mooy contrat bi doxoon diggante ma club boobu maanaam dañ koo libéré li ko war a nag moom bi ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi club bi moom leeralut ko moom li ñu li ñu dakkal rek li ñu wax rek mooy dal dinañu dakkal seen ab ànd euh, terminé nañ li nga xamante ne mooy contrat bi doxoon seen diggante waaye nag li nga xamante ne mooy laxasu ci suuf nekk ci gannaaw jour ci boppam moom daal dina koy leeral te ñu bari xamuñu ko woon du dara lu dul kaan bi nga xamante ne tubaab yaa ngi ko doon soofantal mooy li nga xamante ne moo indi problème bi yépp moom nee na moom avant muy dem ci CAN bi euh, dégg nga bi mu euh, yëgalee club bi ne day dem représenter Nigéria ci CAN bi ci lañ ko doon jéem a découragé di ko ne jarul kay dem bul dem euh, loolu compétition la boo xam ne amul benn importance voilà da ngay toog moom nag xëy na li mu décidé ngir dem représenter Nigéria nee na depuis boobu nag ci la gis ne daal problème yi tàmbali na booba ak léegi benn jàmm amatul ko bi mu demee ci CAN bi ba ñibbisi ak léegi moom daanaka mën nañ wax ne dañ ko tegee à côté même salaire am sax joxuñu ko ko voilà maanaam jafe yu ba yu métti lay dund depuis boobu ak भाग लेगी te dara waralu ko loolu rek li nga xamante moy demoon a kan bi mi nga xamante ñom dañ ko doon soofantal ci ne amul importance jarul ngay dem voilà mu dëgër bop wala bok mu gëm li nga xamante moy mooy dëkkam ba dem représenté leen ñew di dundu jafe-jafe yi ba fi mu mujjé moy ñu daldi jëng maam jéxal contrat ba mom ki nga xamante moy international nigérien bi lee nga xamante moy clé ci no akali li nak li muy leeral rek moy tuba bi soofantal gi nga xam ñu ko soofantal kan compétition bi gëna mag afrique nga xamante ni képp ku juddo afrique wala nga nek africain li ngay rêvé moy jëfe ji wala boog sax seetaan ko ñoom ñu koy soofantal naan ko important wut kon ndax man dañuy wax ne deuxième division bu Espagne moo gën a important wala moo gën a euh, am importance lii di CAN loolu lañ ci mën a jàngee loolu sax moo ko indi fii yëpp voilà kon moom jamono yi jafe-jafe yu bari yu metti la dund ci loolu gannaaw boo xam ne leeral na ko nag ci la dégg mbir mi daal di weeru ñu bëri di ko ñaawlu fi mu ne ni ñu xool ba xam fan la wanete di mu jekki gëtam lii a jël li nga xamante ne mooy ndax ab jour bo xamne dafa bëgg représenter li nga xamante moy mooy dëkkam nekk ab africain européen yi duñu dund yi melni de nga africain yi rek ñoy dund yu ni mel de nga gis nga ki ni li nga xamante dal nako ta man na dal bëpp jour bo xamante war nga dem ci kat bi gisseen ngeen mbir mi doxon digënté Ismaïla Sarr ak Watford yaakaar na ne yëgoon ngeen li ci xew yépp ba sax loolu yëngaloon dossier wu ki nga xamante moy Pape Gueye ba Pape Gueye sax narul woon jeexal li nga xamante moy mooy kan bi yoy yëpp africain ñu ngi koy dund ci li nga xamante moy mooy kan bi nga xamante ñom dañu bëgg rek ngir ñëw jouer pour seen dëkk seen club yoy di leen bëgg de nga maam galankor ci loolu ba problème yu bari bari lañ ci dund gis ngeen biñu ñu ci kan bi ak léegi ku mel ni Abdou Diallo joueur yu bari biñu ñu ak seen club dañ leen di tek ban rek daanaka duñ leen di football loolu du dara lu dul yokku leen aw naxar ak dégg nga won wan leen ne yeen la ngeen du amul ben importance da ngeen di tardal seen bop tax ñu bëgg leen a teg yeneen mbir yo xamanteni de nga day galankor seen carrière li nak moy li nga xamanteni ni ci mujji moy comme li leen wax ni ki ni carrière am dakal nañ ko wala contrat ba ak USK bi nga xamanteni ci deuxième division bu Espagne la nek dara salaire am sax jotu ko won motax ne FIFA war na ci jóg dégg nga ak UEFA ak ñi nga xamante ni ñoo di kaaf sax war nañu def bind ci li nga xamante ni moo xew ñaaw na trop voilà gannaaw loolu dañuy wax ci ki nga xamante ni mooy Pep Guardiola moom kii xibaar dañoo bëral ne ñi di waa Brésil dañu ko bëgg tabb mu nekk seen entraîneur Pep Guardiola bu Manchester City Brésil seen entraîneur bi bu ñu jógee ci li nga xamante ni mooy coupe du monde bi day bàyyi mooy Tite day ba tekki li nga xamante ni mooy ndooma tànkam ka ko war a wut nag Pep Guardiola bile moom la Brésil bëgg te kayiti xibaar li mu biral mooy ñoom waa Brésil am nañ confidence ci ne Pep Guardiola dana nangoo nekk li nga xam kon ñoom am ñu teg seen tànk fu dëgër ci ne xëy na euh, Pep dina nangoo nekk li nga xamante ne mooy entraîneur bu Brésil voilà nekk nag équipe boo xam ne boo am histoire la ci wàllum football Pep Guardiola itam nekk coach boo xamante ne bu ñu ràññee la jamono yi euh, ci li nga xamante ne mooy Europe gépp gannaaw bi nga xamante ne def na fi ay jaloore voilà ki nga xamante ne nag euh, moom ab ñu tuddee Fabio Carvalho international wala jeune portugais la nekkoon fa li nga xamante ne mooy ci Fulham kii di xibaar dañoo béral ne dina jógee Fulham signé ak Liverpool ci njëg goo xam ne dina toll ci 5 millions d' euros plus 2 millions wala 3 millions de bonus kii di xibaar yi li ñu biral mooy euh, lii di transfert bi moom sotti na leen rek moo des mooy ñu annoncé ko te annonce annonce boobu ñu ngi koy séentu fileeg mois de mais muy weer bii di ñëw Liverpool dinañ annoncé officiellement ci ne dégg nga maam jënd nañ joueur bi nga xamante mooy Fabio Carvalho milieu offensif la nag ku mën a football dina signé contrat boo xam ne dina ko yóbbu weer bii di ñëw di mai ci la ñuy li nga xamante ne mooy transfert boobule bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi Bayern Munich ndax xam ngeen ne moom club la boo xamante ni bi ñu jógee bi ñu tàmbalee ligue des champions bi ren ba léegi maanaam saison bi bi mu tàmbalee ba léegi mi ngi soog a am defet ñii di Villarreal ñoo leen jox seen njëlbeenu defet kon ki nga xamante ne muy Unai Emery ak Villarreal wala boog Boulaye Dia ak Villarreal ñoo njëkk a teg li nga xamante ne mooy Bayern Munich ab defetam bu njëkk ci li nga xamante ne mooy ligue des champions bi le ndax moom da doon jàpp gars yi di wulli rek di jàllar bi waaye Villarreal mooy ki ko daaneel lii nag liñ ci jàngal rek mooy ñii di euh, ñi nga xam ne dañ doon wax ne championnat bu Espagne compétitif ut club ya fa nekk dañuy foo ñaari club ba fa nekk mooy Real ak Barça di dóor équipe di jaar seen kaw lii yëpp ay waxi naxas a xandang la ndax Villarreal mii nii nekkul équipe boo xamante ni mën na gagné La Liga jamono bi voilà moom bokkul sax ci équipe yi nga xamante ne jamono ñu ngi xëccoo li nga xamante ne muy titre bi te moo dóor Bayern moo éliminé li nga xamante ne mooy Juventus te ñu wax ne ñaari match yi mu mujjee joué ci championnat ko dóor déglul club yi ñu ko dóor bi nga xamante ni dégg nga euh, moo nekk 19e place euh, dóor na ko 2-0 la ko dóor mooy Levante waaye itam ñi nga xamante ñoo di dégg nga maam Cadiz bi nga xamante 17e place la nekk dal dina dóor Villarreal kon lii nekk na loo xamante ni lu doy waar la ñaari équipe yoo xamante ni mën nañu wax ne championnat bu fi yemoon jamono bii ñoom ñaar ñëpp mën nañoo wàcc ci foofu la ci Espagne ñoo tegale ñaari défaite dóor ko ñi nga xamante ni ñoo di waa Villarreal le 20 Cadiz dafa dóor le 20 mars Cadiz dafa dóor Villarreal te moom 17e la nekk ci championnat bu Espagne dégg nga le 2 bii rek eh, ñii di Levante dóor Villarreal dégg nga moom mi nga xamante ni 19 la nekk bu fi championnat bi yemoon tey ji ñoom dañ wàcc léegi nag Villarreal googu moo wëlbateeku éliminer Juventus ba noppi ñëw dóor Bayern Munich ñu bëgg a wax ne championnat bu Espagne compétitif lii képp ku koy wax na xam ne li ngay wax xamoo si dara voilà championnat la boo xam ne bu métti la comme ni bu ni bu Angleterre bi méttee mën nañu wax ne équipe yi ndaw yi sax li ñuy wan équipe yi mag yi foofu la ci Espagne xëy na Angleterre duñu ko fa gis ndax xam ngeen ne euh, Manchester City équipe yi ndaw yi nekk Angleterre duñu ko dóor ah Liverpool équipe yi ndaw yi nekk Angleterre duñu ko dóor am na yoo xamante ne daanaka wax ko dégg nga tekkiwul dara kon lii li muy wane rek mooy championnat la boo xam ne compétitif na comme ni ñu ko doon faral di waxee comme ni mu mel ak Angleterre wala bokk yeneen championnat yi voilà kon Bayern Munich loolu mooy premier défaite bo xamné ne ko ci saison lé té ñi di waa Villarreal ñoo leen ko voilà gars yi loolu de li fi gënoon fas ci kayiti xibaar continuer leen di suivre ce sport ans the best sport news channel